Eh, noo ngi leen di nuyu eh, te di leen ziyaara di leen balu xaq di leen baal di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal di ñaan jotaay bi yàlla yàlla nangul ñu ko ci mbaaxam ak tedd nga am te disalee ko suñuy balance yi yiw lépp lu fiy tàbbi ci ay rëcc rëcc yàlla yàlla boole ñu ko jéggal ah fa tabaarakallaahu ñoo ngi ci téere yàlla bi ci ñu mu jëm ak ñun tey ci benn saar boo xamante ni mu ngi tudd suuratu yuusuf xam naa ni saar la boo xamante ni moom bokk na ci saar yiñ gën a miin ci alquran ah fa tabaarakallaahu ndax dafay nettali histoire yuusuf ci biir saar bi daanaka moom li ëpp ci saar bi li xanaa tuuti mooy des ci saar bi rekk lu mu dul waxati ci Yuusuf waaye saar bépp ma nga tàmbaleeg moom ca tàmbaliwaay ba ba ca jeexal ba ah fa tabaarakallaahu sun boroom muy saaru màkk ngeen bàyyi xel na bokk na ci saar yi njëkk a wàcc yi njëkk wàcc saaru yuusuf bi ci la bokk muy xamal lu bari yonent bi sallallahu alayhi wa ci dundam saar bi dafa yonent yàlla yuusuf dafa bëri lum nurule ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ duggee ba ci biir insha allahu taala eh, daañu ko gis bismillahi rahmani rahim alif lam ra allahu bi muraadihi bi zalik tilka yile aaya aayatul kitaabi laayee yu tukkee ci téere bi di alquran la idaafa bi dafa lamb maana min almubiin ba di aji almuzhiri lil xaq min albaatili nga xamante ni eh, moy bu leer naññ bi inna naka ñun yàlla anzalnaahu ñoo ko wàccee moom téere bi quraanan muy lu ñuy jàng arabiyan ci làmmiñu arab laallakum ndax lee yéen comme yéen ay arab ngeen na ngeen mën a yëngal seeni xalaat man ci xellu xalaat ci def ci atadabbur ndax ngeen mën a dégg ay maanaam mën a comprendre li mu làmbool ci ay maana yaa rasulallah nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi daañu jàngatal la yow rasulallah ahsana alqasasi bi gën a rafet ci nettali yi bi gën a rafet ci nettali yi alquran qissa yonent yi ci nekk yépp ahsanul qasasi la waaye bàyyi leen xel ne saar day gënaante aaya day gënante mooy alquran ci biir alquran dafay gënante kon qissa yi itam dafay gënante léegi ban mooy ahsanul qasasi <clears throat> ñii ne qissa yont yàlla Muusa liñ ko nettalee ci alquran mooy ahsanul qasasi ndax li ëpp ci saari alquran laal nañu histoire yont yàlla Muusa te yont yàlla Muusa itam histoire moom la yàlla ëpp lu mu tudd ci biir alkuraan kon ñu ne mooy ahsanul qasasi <coughs> waaye nag moom ak xissa euh, ñii na xissa maam ibrahim la booy xool xissa yonteele Moussa nuroo na trop ak xissa yonteele Yuusuf xissa yonteele Yuusuf yonteele Yuusuf dafa ñàkk ndeyam yonte yàlla dafa ñàkk baayam yonte yàlla Yuusuf yàlla dogal mu yaroo ca pale ba yonte yàlla Moussa moom it yaroo ca pale ba fa tabaarakallaahu léppi pale ba mujj ci loxaam moom yonte yàlla Yuusuf kadalika yonte yàlla Moussa yàlla donnale ko réew ma Misra kon xaw nañoo jege yow waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi ci biir Màkka di soog a tàmbali woote gi alquran ji di wàcc ñu koy lor di ko wax yu naqari naan ko waxkatu lu dul ku dul dëgg nga doo wax dëgg njabarkat nga dangay ngay lu ne ñu wax ko ko fa tabaarakallaahu ñi nga xamante ni ñoo ko waroon a gën a couvrir ñuy ay bokkam ay bokkam ñoom ñoo koy lor bàyyi leen xel ni gàddaay nañu ñoom ñaari yoon ñoom jullit ñi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dem Taif ay bokki ndeyam da demoon waa kër nijaayam waaye loraange ba mu fa jële kenn du ko nettali yonent yàlla Yuusuf ah loolu moo ko dal ci ay bokkam ñum bokkal benn baay ñoom ñoo ko teg li ko dal lépp ñoo ko lor yàlla di xamal yonent bi ne ko gis nga loraange bii nga am ci say bokk ñoom ñi la waroon a défendre wala ki ñu ñu ñu lay lor nii xoolal yonent yàlla Yuusuf fi mu àgg yow àgg goo fi waaye nag gis nga ñoom ay bokkam dañoo pare woon pour rey ko wala sànk ko yonent bi jàngoon nañ ci gannaaw ni ñoom itam waa Màkka diisoo woon nañu ah wis yamkuru bika na kafaru li yaqtuluuka mooy préparé woon nañ pour rey yonent bi wala génnee ko wala bokk sànk ko comme ñi nga xamante ne mbokki Yuusuf noonu lañ taxawee woon pour sànk Yuusuf mu ne ko nuroo nañu itam del xool yonent yàlla Yuusuf su demee ba yàlla dogal mu génn dëkk bi yàlla dogal lépp nekkaat ci loxaam ana lan la wax ay bokkam mooy benn problème amul xanaa loolu dina nuru kero yonent bi salaa salaam bi mu delluwaatee màkka fatxu màkka ba domine ñépp ana lan lañ ko wax ma tazunnuna anni faailun bikum ana lan ngeen jort ni loolu laa leen di def ana lan lañ ko wax dañu ko yow mbokk mu tedd nga doomu ku tedd doomu ku tedd e pourtant yonent bi salaa salaam nee woon na kookee ku tedd doomu ku tedd doomu ku tedd kooku du man Yuusuf la Yuusuf mooy ki gën famille ndax Yuusuf kan mooy baayam Yaaqub yonent la wala déet yonent baayam kan mooy maamam Yaaqub ku ko jur Isxaaqa yonent la Isxaaqa ku ko jur Ibrahima yonent la mooy baayam yonent la maamam yonent la maamaatam yonent la kon kooku ku mel ni moom ci moom famille amul kon mbir yi dafa mel ne nuróo na moo tax bii yonent bi di wax ak waa màkka da leen di wax ne leen mankat kat li yuusufa waxoon ay bokkam dong laa leen di wax kon ngeen bàyyi xel ne saar bi saar la bu bokk ci njëkk wàcc ci alquran di tracel yonent bi dundam mu niit ko ci xissa yonent yàlla yuusuf wax ko fi muy mujj ne ko yàgg yàgg yàgg lépp ci sa loxo lay nekk ndax yuusuf kat fi mu jaar lépp dafa mujj nekkaat ci nekkoon ci ay loxoom suñ borom ni nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi ñun qissa yonte yàlla yusuf kon mooy ahsanul qasas ndax lépp daje na ci lépp lu nit di dund rek daje na ci lépp daje na ci su ko defee nag bima ci sababu la nga xamante ne aw xay naa wax yu nañu ko ilayka jëmee ko ci yow haazal quraan bile al quraan ci lañ la koy nettalee ah wa in naka mbir teen mbir in muxaffafa min athaqila la waaw waaw mi ngi noonu wa in naka luy mbir tey mbir kunta de nekkoon nga yow rasulallahi min qablihi la njëkk ñu lay wax yu di la ko nettali la min algaafilina laam jooju laamul alfaariqa bayna in al muxafafa wa in dégg nga léegi nag xissa bi sun borom nee na dinaa la ko nettali xissa bi tàmbali bi laqad kaana fi yusufa wa ixwatihi ayatun lissaa'iliin moo di am na ñu koy laaj suñ boroom ne laqad kaana dëgg nekk na fii yuusufa ci istuwaaru yuusuf digganteem wa ixwatihi ak ay bokkam la aayaatun ay kéemaan yu doy sëkk ak waaru lissaa'iliina ñeel way laaj mu commencé nag di ko détaillé kon xissa la boo xamante ni bàyyi leen xel ne ñaar de dox nañ ci rôle yu rëy rëy muy lii ñuy wax gént ak lii ñuy wax mbubb ndax xissa bi mi ngi tàmbalee ci gént digg bi gént la waaye itam jeexitu xissa bi muy firig gént gént daañu ko ci tudd ñetti yoon waaye itam mbubb mooy tàmbali xissa bi moom itam liy jàqaloo baayam ba mu jooy ba ba di lëndëm mbubb la waaye li koy bégalaatal itam mbubb la waaye itam liy setal yonte yàlla yuusuf itam mbubb la kon mbubb itam dox na fi ñetti dox kon xissa génte ko tàmbali génte koy jeexal waaye mbubb itam mooy tàmbali mbiru yaaqub mooy setal yuusuf mooy delloosi itam mbiru yaaqub bur bi nee na is ba nga xamante ne qaala wax na yuusuf yuusuf li abihi ñeel baayam ba yaaquub ne ko yaa abati ey baay lum la jàngal foofu mooy doom du sàllalu baayam way jur kenn du ko sàllalu moom xam na ne baayam yaaquub la tudd waaye yaa ko baay waaye gis nga baat bi li mu làmb yaa abati respect ak orma bi làmb ci baat bi ne ko indi naka man baay raaytu gis naa ci gént gis naa ahada achara fukk ak benn kaw kaban ciy biddéew wa shamsa ak jant bi wal qamara ak weer wi mbokk yi xam nañu jant mooy bii ci kaw asamaan kañ lay fenk du bëccëg xam nañu weer bii ci kaw asamaan kañ lay fenk du guddi ah xam nañu biddéew yi moom de bëri nañu moom mu ni gis na jant bi ànd ak weer wi kon loolu mun te nekk ci gisu bët kooku gént la mën a doon ndax jant moom bëccëg la moom weer guddi la moom waaye itam biddéew yi ak biddéew yi mu fukk ak benn li mu fukk ak benn mu ni raaytuhum ba ma leen gisee ba xàmmee leen mooy gis naa leen muy benn parti waaye ma gis leen nag ñoom raaytuhum dina ñuy way sujootal lii ñeel ma ñoom ñépp ñu àndandoo jant beeg weer beeg biddéew yépp ne groupe sujootal ma mu ne bàyyi lii laa gént mu ngi jàngal nit lu mu xew ci moom way juram war na ko xam ba ci ay gént kiy nettali gént baayam kooku leneenam du ump baayam mag ñi dañ daan wax ne képp ku ñuy defaree ak sa baay defaroogoo góor gi daana ma wax ne xam nga bayre nu mu tudd bayre lan la ma ne ko bayre mooy yi ñu bind sàmm mu ne ma déedéet bayre mooy baay ree kii géntam la nettali baayam baayam yonent la baayam yonent la xam na luy firi gént moo tax dina la jaaxal yow miy jàng raaytuhum li saajidiina saajidiina xaala kawnihim ñuy woy sujjóot nga gis ni jamu muzakkar as-saalim la ndax dañoo am ñaari jamu dañoo am ay jamu boob bii jamu muzakkar as-saalim la muslimun boo nee muslimuuna mooy baat bi mufrad bi mucc na dara toju ko mu'minun nga ni mu'minuuna dara tëju ko zeydun nga ni zeyduuna baatu mufrad bi mucc na ci toj ñu tuddee ko boo nee woon rajulun booy indi jam am danga nga naan rijaal mooy mufrad ma muccul ci toj xar nga baat bi léegi nag nga ne jam amu zakkar as saalim léegi nga ni lii lii de du ismu waaye wasf la waaw warfa bi waawin waawin wa bi yajrur wansibi saalima jamci aamirin wa muznibi wasfu nag sifa su fekkee ni dafa war a nekk jam u muzakkar asaalim dafa am yu muy daje mooy an takuna sifatan li muzakkarin aaqilin ah xaaliyatan min taa i taanisi walaysat min baabi afala faala comme ahmara xamra abyad bayda aswad sawda ولا من باب فعلان فعلا سكران سكرا ولا فيما يست ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث comme ni ñu jàngoon démb ajuuzu a alidu wa ana ajuuz léegi xool leen jant bi weer wi ak biddéew yi lan moo ci am xel ba pare mu ni wasf bi mu ne ah saajidiin parce que sujjóot ni comportement bi ñu def ni mu nettalee gént gi mooy dañoo ñëw toroxlu wàcc sujjootal ko loolu jëfi borom xel bu ànd ak tànnam ak toroxloom jëf jooju mu aj leen ca waa xel ya daldi di koy def saajidiin bur bi nee na mu ni raaytuhum gis naa leen lii saajidiin baay bi ne ko yaa ya baat boobu li mu ëmb lan la mooy ñeewant ak cofeel goo xamante ni gi mu am ci doomam bàyyi xel ne yontu yàlla yaquub dafa am fukki doom ak ñaar mi ngi yoroon ñeenti soxna kenn ki moo jur juróom ñaar yi yeneen ñett yi kenn ku ne am ñaari doom yaayu yuusuf di raxiil moom la am Yuusuf la am ak Benyamin yàlla dogal yaayu Yuusuf bi rakkam ji juddu di ci mattu ga bi mu juddoo la faatu léegi bu faatoo ñii seen yaay a ngi dund tii di xale bu ndaw yaayam faatu na baayam jël cofeel bi mu ko waroon a jox ak cofeel bi ko yaayam waroon a jox mu boole yépp def ko ci doom ji kon yuusuf dina am cofeel ci wàllu baayam bu ëpp yi cofeel yi ñeneen ñi di am ndax moom daa boole ñaar mooy baayam dakay jox cofeelu boppam waaye joxaale ko cofeelu yaayam pour wax leen ni rek liy xew ci kër léegi ah soxna yi gis nañu ni nii yitte bi nga xamante ne moom la yaqub di jox doomu raxil mi faatu joxu ko seeni doom ndax ñoom ñi ngi dund ñoom ma doon seeni doom mën nañoo partagé wu cofeel gi mais ñii dañoo boole ñaar yépp ah ñu ni nag ci seen biir boo gisee nit bëgg doom lu ëpp lim bëggee doomu keneen mooy parce que cofeelu ndey gi lay rotal ci doom ji xam nga dégg ngeen bëgg a waxam déedéet soxna yi kon seen fiiraa ngi xol commencé feeñ ñu waxtaane ko waxtaan boobu mooy rogaat ba ci njaboot gi njaboot gi ñu wan leen ne leen yéen seen baay yitte bi mu jox yuusuf fi mu ko teg tegu ko fenn ndax yuusuf du tàqali ko ak baayam parce que ndeyam nekku fi looloo tax yaaqub dem ba yëg loolu xam na këram xam na njabootam kon nag bu ko doomam nettalee dara li tax mu ne ko nëbbul nëbbu ko say mbokk say frère parce que am na lu mu xam moo tax mu ne ko yaa bu ne yéex ey yow doom rekk waaye laa taqsus bul nettali mukk yaaka sa gént gi ala ixwatika ci say mbokk sa frère yi buñ ko gént de buñ ko yëg de ndax yaqub xam na li gént gi ëmb te doom yi itam xam na ni doom yi du ñàkk ci ñoom ko xam piri gént ba bu déggee affaire bi rek musiba am ah boo ko defee defa yakiidu daañu fexe laka ñeel la kay daan ak pexe ndax sa gént gi am na lu mu wunn dafa tracé sa dund ndax inna seytaane naka seytaane moom de àddu wun bu sax la noonu la bu sax mu biirul bu di aji biir ji nooneel lil insaani ñeel xeetu doomu aadama waaw sun borom di wax ak Yuusuf ne ko wa kazalika noonu la yàlla wanee la gént gi muy feeñal sëg ak muj jecce bii que la la tànnee rabbuka sa borom wa kazalika mu ngi ko koy wax naka noonu la la nam ma tàmmee rabbuka sa borom wa yuallimuka wa yuallimuka mu xamal la min tawilil ahadisi mufassir bi nee na mooy pirim gént waaye min taawil ahadis yaatu na mooy di dangeen ko dégg bu demee ca kaso ba ña mu nekkal mooy da leen wax ne leen luy xew suba lu ngeen di xalaat lu ngeen bëgg a lekk plat bi ngeen bëgg sax dinaa leen ko wax mooy lépp lu nekk ci nit avant mu koy wax yàlla xamal ko ko min taawil al ahadis wa yutimmu mu mat matal na ma matal moom yàlla nimatahu xéewalam alayka ci yow yuusuf jox la nubuwa wa ala ali yaquba ni nga ak ñooñu Yaaqub mooy say bokk lañu waaye ñoom itam yàlla dina matal ci ñoom xéewal ndax xéewal gi mu la nar a joxi ñoom dana leen làmbaale ba lépp jeex ba ñu nekk ay yonent kama atamaha comme ni matale woon nubuwa gi ala abawayka ci say way jur sa baay dégg nga sa maam min qablu te njëkk ibrahima ibrahima sa maam wa ishaqa ak isxaaqa sa maam inna rabbaka naka sa borom de alimun aji xam la mbindeefam nii waaye xakimun du juum ku xerañ la ci nim koy tëralee laqad kaana yow dëgg nekk na fi yusufa ci histoire yusufa wa ixwatihi ak bokkam yi fukk ak benn ayatun ay kéemaan yu ñu mën a waaroo lissaa'iliina ñuy sàkku xam seen xabar léegi nag loolu mooy parti bi nekkoon diggante yusuf ak géntam ak pap ak papam ak lam ko ca wax léegi nag nañu seet mbokkam ya lan lañuy dund ak yuusuf ñoom la leen jaaxal moo di ñoom ay góor yu mat jaam ay góor yu mat góor lañu mooy lépp lu aju ci taxawaayu kër gi ñoom ñoo koy taxaweet bu dee gor mat ñooy gor yanu gàddu sa yi indi ci kër gi bu dee liggéey ñoom ñooy liggéey bu dee sàkket ñoom ñooy sàkket ñoom ñoo yor kër gi di fukk ak benn waaye gis nañu ni yitte bi seen bàyyi jox yuusuf mi nga xam ne xale bu ndaw la deful dara ci kër gi lu dul tëdd ci penkal baayam yitte boobu daal jaaxal na leen moo tax la ñuy waxtaan seen biir ba nga xamante ni xaalu ña ngay waxante seen biir ñoom di waxtaan naan ñun de la yuusufu daal la yuusufu lam gi laamu ibtidaaya ta'kiid la yuusuf daal dëgg dëgg dëgg wa axuuhu ak fereeram boobu di benyamin ñoom daal axab ahabu ñoo gën a tànnu ñoo gën a taamu moo ëpp cofeel ilaa abina ci sunu baay min naa ci ñun ñun daal sunu baay lim leen jox ci cofeel bokkul ak lim ñu jox te ñun wa ndax nu usba ñun ñooy mbooloo mi nga xamante ne ñu am kàttan lañu ñooy dundal kër gi ñoo yore lépp ñun daal dafa mel ni lii xew inna abana naka sunu bàyyi lii muy def la fii dalalin wa bada zatil kasri tashabul xabar la mubtida nahu inni la wazar inna abana lu wér péng ne sunu bàyyi la fii dalalin dañoo am ay dalal dafa am dalal buy firi cànkute am dalal buy firi réer bàyyi ko njub loolu jomb na ci seen bàyyi xam nga lan la ñuy wax inna abana nekk sunu bàyyi daal la fii dalalin mi ngi ci njuumte mu biinin gu biir ci taamu gi mu taamu ñi mënul dara ñun ñi man dara mu sàgge nañu a ah, am ñu wax loolu léegi nag ñu ne léegi lan moo fi pexe ñu ne ah mais kii dox suñ digganteek suñ bàyyi nañ ko fi jële ah fukk lañu ak benn fukk lañu am ñu wax ne ah nañ ko rey uqtulu rey leen yuusuf yuusuf benn parti bi loolu la wax ah loolu waxoon nañ ko yonent bi ne nañ ko rey du loolu mooy xalaatu abu jahlin ba ñëpp dëppoo woon yàlla aar ko ca am ñu ne déedéet buñ ko buñ ko rey mooy nañ ko sànni ci àll bi ci sedd bi suñ ko fa wàccee tilli yéeg yépp dañ ko lekk ñu mu jeex awitrahuhu wala ngeen sànni ko ardan ci àll bu sore sore ngeen wàcc ko li yuxriju ko xanaa ñëw na ñoo ko nuróole de ah su ko defee rey leen ko wala ngeen génnee ko su ko defee yaxlu dana wéet lakum pour yéen waju abikum seen kanamu bàyyi boo boobaa seen kanamu bàyyi amul lu dox digganteem ak mu xool leen dara du fi nekk yéen dong lay mën a xool su defee seen papa duutu xool keneen te boobaa cofeel gi mu am xanaa dina leen ko jox te wa takunu da ngeen nekk min baadihi gannaaw bu ngeen ko reyee wala ngeen génnee ko xawman di aw nit saalihiina benn ci lenn ci mufassiruuna yi mufassir bi ne après bu ngeen ko defee ba pare yàllaa ngi fi ngeen tuub ndax bu ngeen tuubee da ngeen nekk xawman saalihiin am ñu déggee ni wa takunu ngeen nekk min baadi gannaaw xaw man qawman saalihiina ñoo xam ne seen affaire dina baax liñ bëgg ci kër gi bëgg ko ci seen bàyyi lépp dina sotti ndax amatul lu leen di gêner waaye ci ñoom bàyyi leen xel am na ci koo xam ne xolam moo gën a jege Yuusuf ak Benyamin kii mooy ki nga xamante ne bu ñu demee ba ca mujjanteel ba mooy bi Benyamin nekkee ci loxol Yuusuf mooy ki ni woon du génn dëkk ba lu dul papaam jox na ko ndigal ne dem leen ngeen wax seen seen baay sa doom sàcc na waaye man mënuma fay jóge kooku mooy wax kàddu gi kàddoom moo njëkk fii mooy mujj waat foofu kon boroom kàddu la ci seen biir moo tax mu ne xaala daal di wax qaa'ilun aji wax minhum tukkee ci ñoom ne leen laa tax taqtuluuhu d'accorduma ci rey gi bu bu leen bu leen rey yuusufa yuusuf mu indi tur bi pour bàyyi leen xel ne kii seen mbokka waxul laa taqtulu de laa taqtulu yuusuf bu duma nangu rey gi te bu leen ko sànni xam ngeen nan la ñuy defar wa alquhu sànni leen ko fii xayaabatil jubbi wala fii xayaabatil jubbi bu ci ne jàng nañu ko mooy sànni leen ko ci loolu ñuy tudd al jubb arab dafa am ñaar dafa am biir li ñu tuddee teen waaye nag dafa am al biir al maqwi mooy boo xam ne xam nga boo defaree teen ba pare da ngay jël yëkkati mu tabax mu jóg ndax ngelaw li du jël poussière beeg lu xew dugg loolu ñu tuddee pind nga wutal ko pind loolu bu fekkee nag amul ab pind loolu lañ tuddee al jub teen bu amul pind moo tudd al jub léegi nag xayaabaat bi mooy teen bi xoot na xootaay bu toll nii moo xam bërig ndox bala moo xam lëndamaay bala ba lu ca dugg ku tiim teen bi du ko gis kon fii xayaabaatil bi loo xam lu ca dugg ne mes fàddu mu ne dugal leen ko ca ba ku seen du ko bu ko xool teen bi sax doo ko gis su ko defee ñu mucc ci ah moom da lem leen tere ak li mu santaane xaw ma lu tane ndax bu dee rey ga yéen dafay bañ ngeen jonjoo rey direct awit rahuhu ardan ngeen sànni ko jur gi lara lekk ko dey bañ ngeen jonjoo rey boo xamante ne am na lu dox ci diggante ba bii nag jàpp na ne moo tane ah sun borom ne loolu la wax mun leen alqu fi ghayabatil jubbi ndax teen bi kat nit ñi dañ koy soxla yaltaqitu de amaana for ko baadu sayaarati lenn ci way tukki ñi in kuntum jéem dem ngeen bay nekk faa ili di way def li ngeen nam ah ñu d'accord ci xalaat boobu léegi nag kon waxtaan nañu d'accord nañ ci xalaat bi léegi nag xalaat bi ana nan lañ koy appliquer mooy il faut ñu jot ci Youssouf te Youssouf toujours mi ngi takkoo ak papaam ndax dañuy dem nangu ko ci moom wala sàcc ko déedéet ñu ni nañu dem convaincre sun papa ba ñëwee ci seen papa ñu ne yaa abana yow sunu baay ñun ñëpp lu ñu jaaxal moo di maalaka moolu la ñeel yow bàyyi lan moo xew ba tax na laata man naa doo am ci ñun confiance doo ñu wóolu mukk ala yuusufa ci yuusuf kon ay tentative yu jëkkoon amoon na am na yu xewoon ba ñu xam ne ñoom seen bàyyi wóoluwu leen ci yuusuf lan moo tax bàyyi doo ñu wóolu mukk ci yuusuf te important ñun bàyyi wa inna naka ñun lahu la naasixuuna way taxawu la ñu lahoo ñeel ko ci lépp loo xamante ne mooy yéwanal ay mbiram way laay lañu ko ah nekk ci wetam di fo di waxtaan ak Yuusuf di waxtaan ak moom yàgg ñu waaw bàyyi arsilhu mais tey bàyyil Yuusuf boobu mu génn maanaa ànd ak ñun xadan ëllëg bàyyi ko mu ànd ak ñun ëllëg bu subaa ñu dem ci désert bi su ko defee buñ demee narta ah ñu mën a comme dañuy sàmm ji jur gi suñ demee mën a dàqante mën fo mën a lekk ba suur wa nal ab ñu fo wa naa naka ñun yow baay la xaafizuuna way sàmm lañu way aar lañu way yittewoo lañu lahoo ñeel ko bàyyi leen xel ñaar yooyu inna lahu la naasixuun ak inna lahu la xaafizuun ñoom ñoo wax loolu a ah, seen bàyyi ne leen man ñaara ma jaaxal man benn bi moo di Yuusuf ànd ak yéen jaaxal na ma waaye itam Yaaqub daa géntoon benn guddi till ay till lu jege fukki till di dàq doomam ju yuusuf di ko dàq di ko dàq di ko dàq mu naan yuusuf di yuusuf ba ne xefeet yeewu moo tax mu neen indi nag man la yax la yaxzunu nii dana jàqloo ma de dana tiis ma torop an tazabu ci bu ngeen demet bi hi yuusuf mu tàqali ko man ànd ak yéen loolu tiis la muy benn beneen bi mooy wa axaafu itam dama ragal an yakulahu bu ko lekkee ak bu till mu bàyyi fi lépp tudd till géntam ngaa tax ah beneen bi nag mooy moom fi mu juumee ci sag gi mu sax xale yi aw lay moo di wa axaafu an yaakulahu zibu te wa antum yéen a fekk ngeen soxla woo leneen ba sàggane an wëlif ko kon jox na leen aw lay woo xamante ne bu ñu exécuté li ñu bëgg daañu lay ca loola xaalu ñu ne ko la in akalahu giñ nañu njéem lekk na ko sàggan nañu ba lekk ko azibu till te fekk wanax na ñu ñuy usbatu ñuy mbooloo inna nekk ñun isan konde la xaasiru na way perte lañu ñoom seen papa ñaare ko jàqal de waaye benn bi lañ tontu indi la yahzununi an tazhabu bihi ñoom tontu wuñu ci ndax looloo indi nooneel gi buur bi nee na kon parti boobu jeex na léegi nañ xool Yuusuf ak ay mbokkam léegi nag seen papa jox na leen autorisation falamma ba nga xamante ni zahwa demee nañu bihi ak Yuusuf ànd ak moom kon ñoom ñoo ko yóbbu wa ajmau ñu dogu te la nga xamante ni am nañu occasion bi lañu waxante woon ci seen biir réunion ko namm nañu ko moo di an yajaaluhu buñ tàbbaleet ko buñ ko defee fii gayaabatil jubbi ca kumpay teen ba ah ba ñu dogoo loolu suñ borom nee na am na alwaarid al ilahi wala mu nekk ilham wala mu nekk waxyi yàlla daal di xamal yuusuf lii xew lépp moo tax mu ne wa aw xay naa wax yu nañu ilayhi jëm ci yuusuf wax yu nag mooy loo xamante ni dafay nëbb kàddu gu nëbb la jëm ci ki mu jëm ne ko lata la tunabbi annahum bi amrihim haada wa hum la yash'urun sànni nañu ko ca teen ngoon xool leen premier guddi mu nekk fa ca àll ba ñaareel bi guddi mu nekk fa ñetteel bi guddi moom tundum ci biir teen waaye naka ñu ko daal di sànni rek yàlla yebal jibril mu ñëw wéttali ko ne ko xamal ko ne ko lii day jeex da dina am ñu la jël si waaye buñ la jëlsee daañu wax ni yow ku ñu moom nga ab jaam bu daw nga waaye bu nangu bu réagir nangul daañu la yóbbu daañu la jaay buñ la jaayee waa pale ba daañu la jënd daa dëkk ca pale ba ca kaw fa nga jëmi te bis dina jot nga toog ca pale ba ñoom nga recevoir sa mbokk yi nettali leen li xewoon moo tax mu ne ko naa wa awxaynaa ilayhi la tunabbi annahum kon Yuusuf am na information yi li war a xewi lépp moo tax du réyagir ci benn am méttitam day daal di jeex da leen soloo ji da leen xamali gannaaw tey bi amrihim ci mbirug seen jëf ji haasa bi mbir ma ba muy am ak bañ koy wax wahum mbir moom ñoom la yashuruuna ba mu leen di wax naan leen ndax yéen a ngi fàttaliku xam ngeen li ngeen defoon yuusuf ak bokkam bañ naa ko la ante yuusuf kon mën nga koy xamal fii léegi nag def nañu loolu mooy seen diggante yuusuf kon faxasu nañ ci moom mooy dugal nañ ko ci teen bi faxasu mais problème bi mooy lan lañ war a laaj yi seen papa ngoon jot na te ñoom ngoon lañ daan ñibbi bàyyi leen xel ni eh, jëmm day wax luxatul jasad mooy li li li jëmm di wax moo gën a dëggu li làmmiñ di wax léegi la bu ñu ñu bëgg nëbbu li seen jëmm di wax moo tax dañoo bëgg a bàyyi ba jant bi so xam ngeen jooy ak ree yàlla moo koy def ci nit benn aatife la boo xamante ni danga koy yëg di ko def moo tax bu fekkee ne reereelu moo mën a am ak jooy jooylu kii jooy jooylu kon fala bu di mu jéem a bënn bëtam bu ko munta génnee rangoña mu tooyal làmmiñ bi def ci kii pour waneen doon na jooy te loolu bu dee bëccëg la day fes moo tax ñu ne loolu yëpp yi ñu bëgg a def yëpp il faut ñu bàyyi ba guddi mooy moo tax mu ne wa jaau dikkal nañu abaahum seen bàyyi ishaan waxtu marax mooy parce que li seen jëmm yi di dégager di wax bëgguñu seen bàyyi gis ko ndax li ñuy wax dara ju ci dëgg xaala kawnihim yabkuuna ñuy jooy jooyoo kenn ku ne di jooy di riir seen papa geestu xool lu xew lu tax ñu guddee mësuñu guddee waaye lan moo waral jooy yi moom bëtam gisul ay doomam mais bëtam mi ngi ciy jeex ana kan mooy yuusuf nekk mu xool leen gisul ci yuusuf rek mu ni datt toog mënatul yëngal ay tiram toog daal di felankulaay lan la lan la lan la lan la lan la di jooy di jooy di jooy mu leen wax leen lan la lan la lan la moom de xam na lan la ña nga naan xaalu ña naan yaa abana yow sunu baay kenn kay wax ñeneen naan ah moom kay noonu la inna naka ñun zahab naa dañoo demoon nastabiqu doon rawante raw nastabiqu di njëkkalante ci ay fet di di seet kuy gañe watrak naa ñu bàyyi woon yuusufu yuusuf inda mata ina ci sunu bagage yi ñoom ñoo waxoon inna lahu la xaafisuuna inna lahu la naasixuuna est ce que dañoo yóbboon yuusuf pour bàyyi ko mu leen di gardeel ay bagage wala dañoo waxoon ne nar nala nar nar nar ta'i wa at xam benn wax lu dul dëgg ba fa la njëkk a tàmbalee mooy trak naa yusufa inde mata ida ba tax na bañ ko fa bàyyee fa akalahu daal di lekk ko azibu till waaw ndeysaan yàqu bi mi ngi rek ñu ne ko donte nag xam nañ ni bàyyi wama ante mukk doo yow doo doo nekk bàyyi yow mukk bi mu mini di dëggal la naa ñel xam nañ li ñu wax moom doo ko gëm mukk waaw walaw kunna na même bu ñu waxoon dëgg sax doo ko dëggal xanaa wax ji leer na <laughs> léegi nag lan leen rey mooy preuve bëgg nañu indi preuve xam nga eh, dañoo xam ne isa kunta kazuban fa kun zakura soo bay demee bay créer fen na nga nekk fàttaliku kat parce que dañoo wax ne amul benn fen buy parfait wa jaau ala bi damin kazibin mooy ñu ngi doon wut preuve mooy mbubb Yuusuf lañ jël mooy gannaaw bi dañ ko summi jël mbubb mi dal ci taqal deret mooy rey benn gàtt xanaa beneen tooñaangoog ci seen gàtti bàyyi ah daal di koy taqal deret ji indil ko ko jox ko ko yoon yoon ca la Ayuba di xool mbubb mi ah, ndaw till bu am xel ndaw till bu lewet lekk nit ki ba mu jeex te mbub mi dara bënnu ci dara xottee ci wucc ah, ba pare itam deret xanaa deret ci biir lay jóge ndax mbub mi daa nit ki dakaa sol waaye deret ju nekk ci kaw ah jaaxal na ma de moo tax buur bi nee na wajaa u ñu indi comme preuve gis ngeen xoolal ci xool waxinu alquran bi demin la wax lañu indi la ñu indi mooy la baaga di àndal wajaa u ñu indi ko bi demin ci deret joo xam ne moom deret ji ci jëmmi boppam kasibin deret ju dul dëgg la ndax la muy dox du dëgg ñu teg mooy alaa xamiisi yi ca kaw mbubb ma deret ci suuf la war a jóge bu ñu lekk nit waaye bii ca kaw la taq deret bu taq ci kaw mbubb nga di ko jëb jox sa baay ngir na ne ko sa doom bi ko soloon till ga lekk na ko lekk ko bàyyi fa mbubb ma te mbubb ma xotteekuwul bënnul deret ji nekk taq ca kaw taqul ci biir ah kon nag wa jaaw ala xamisi bi demin kasibin moo tax ba mu téye mbubboo xaala yaqub na leen xam naa ni waxu leen dëgg de xam naa ni waxu leen dëgg de waxu leen ma lay xew de waaye lii day day dëgg tey dëgg bal lii dëgg tey dëgg mooy sawalat dafa taaral jàppandalal yolomalal lakum ñeen leen anfusukum seen bànneexu bakkan amran am mbir ngeen jëfe ko man nag li ma dese moo di muñ te muñ boo dul jàmmat muñ boo dul wax kenn muñ bu kenn dul xam li la naqari loolu rek laa mën a def fa sabrun jamilun fa sabrun muñ laay def rek jamilun gu jekk boo xam ne duma jàmbat waaw waaw am rii fa sabrun jamilun xabar la bu ñu xasaf mubtadaam wallaahu bur yàlla almustaanu mooy ki ñu sàkku ci moom ndimbal ala ma na ci li nga xamante ni yéen a ko melal yéen a ko sos di ko melal ci mbiru Yuusuf ewaay eh fu ma jëm ci Yuusuf diggante nag ak seen bàyyi foofu la jeexee léegi nag Yuusuf ma ca teen ba lan moo xew ci moom am ñu doon voyager ñëw ba jege teen ba daldi yebal kenn ne ko lee dafa mel ne ab teen la teen ñoo seet ndax ñun kat dafa mel ne soxla nañu ndox mu dem jël baag ba sànni ko ca teen ba ba mu ko sànnee ca teen ba yëngal daal di xëcc di commencé jukki bi muy kii rek mbir mi diis baag bi buum gi diis bi mu diisee mu xëcc xëcc mu diis mu sëgg xool seen benn xale bu ci téye rek mu yuuxu ne gaañi eey kaay leen kaay leen xale nekk ci biir teen bi te xale bii may séen dafa mel ne leer gaa ngi ko wër ma ngay mel melin bi ngir ku rafet la moo tax mu ne wajjaat daal di dikk sa yaaratun way tukki nee nañu mi ngi ñu ngi bàyyi ko woon Madyana jëm Misra ñu wàcc ci lu jege pind ba fa arsalu ñu daldi di yebal waaridahum aji rootal ji seen ki nga xam ne moo leen di wutali ndox fa adla mu daal di yoor dal waxoo baagam ba naka mu daldi ko yoor ci biir di xëcc mu dëgër ndek mu seen xale bu ci ngalaamitu xaala mu tëb ne yaa bu shuraaya wooy sama mbég yow sama mbég mbég mbég kaay mbég haza gulaam lii xale la lii xale la daal woo gaañam ni ñu ñëw wa asarruuhu waaw gi dafa am baadul mufassirina comme jalal loolu la wax mufassir bi fii dafa ne waaw gi mi ngi dellu ci mbokki yuusuf mbokki yuusuf ñoo dajaloo ñëw ne ko ke xale bi xale bi ah xale bi suñ jaam bu daw la rek bu ngeen bëggee ñu jaay leen ko moom noonu la demee waaye am na ñeneen ñu wax ne waaw gi demul ci ñi nga xam ne ñooy mbokk yusuf wa asar ruuxu mooy ñoom ñi nga xamante ne ñooy way tukki ñooñu ñu génnee xale bi di ko yóbbu dañ au lieu ñu ànd ak moom dox waaye dañ kaa nëbb pour bañ ku ko gis nangu ko ci ñoom wa asarruhu ñu nëbb ko ah bidaatan comme marchandise ni ñu nëbbee marchandise ba kenn du ko gis ñu def ko comme marchandise yóbbu ko waaye yàlla nee na wallaahu bur yàlla alimun xam na bi maa yaamaluuna la ñuy def léegi nag ña def waaw ga dellu ca wa asarruhu mu dellu ci ixwatu yuusuf dañuy wax ni ñoom wa sharahu ñoo jaay ñoo ñooña gis xale bi ñoo jaay yuusuf jaay leen ko bi samanin ci njëg baxsin bu wàññeeku bu perte bu dul dara lu dul darahima ay dërëm maaduuda wa kaanu ñu nekk min azahirina di way du mooyu fii ci moom ci li nga xam ne jaay nañ ko muy amuñ ci moom soxla ñu wax loolu waaye bu dee ñi nga xam ne waaw gi dañ ko delloo ca mbooloo mag ñëw gis ko ñoom de seen mbir dana jekk ak alquran di ni muy doxee bu boobaa dañuy wax ne ba ñu àggee Égypte comme nag dafa amoon marché boo xam ne ci lañ doon jaay nit ñi am ñuy ñëw di jënd ñiy jënd si dañuy wut ku leen di goral ñii dañuy wut ku leen di gasalteen ñii dañuy wut ku leen di liggéeyal su ko defee dañuy wut boroom doole kii xale bu ndaw la xale bu ndaw la ndax lan moo ñu war a wax ne xale la bam ne haza gulaam xam nañ ne gulaam ci arab mooy xale bu amagul fukki at ak ñeent soo xasee am fukki at ak ñeent dootoo tudd gulaam kon xale bu ndaw la ci fukki at la tollool yàlla dogal ñoom ñooñee di jaay di jaay yàlla dogal da gis léegi-léegi koo xam ne defal yàlla la mooy ki ñu tuddee azizu mistre azizu mistre bokkul ak buur bi ñoom seen mbir dafa mel ni niñ doon doxalee ci seen nguur mi ngi mel ne xam ngeen Angleterre Angleterre dafa am buur boo xam ne moo yilif mooy nguur gi waaye day am premier ministre boo xam ne mooy gérer lépp luy administration gouvernement bi ah comme Angleterre léegi nag premier ministre boobu dayo bi mu am ci Angleterre moom la Azizu Misra amoon dayo boobu ci biir Égypte waaye nag am na ko ko tiim muy Malik bi muy buur bi xaw ma dégg ngeen li mu bëgg a wax am déet la demee léegi nag Azizu Misra boobu yàlla dafa dogaloon moom kat dafa nekkoon li ñuy tudd olof di tuddee tuuña mooy koo xam ni daal munta jëflante ak soxnaam waaye nag muy bëgg a bëggal soxnaam tax mu ne ko tey de dinaa dem ca marché ba wutal la fa koo xamante ne dana la dimbali ci kër gi gannaaw bi ñu déggee coow bi ne am na ku nekk ca marché ba xale bu rafet xale bu rafet mu ni kool xale boobu duma rëcc mu nekk comme cadeau bu ma ma neexalee sama soxna moo tax buur bi nee na wa sharahu bi samanin baxsin darahima maadudatin wa kaanu fii min azahidin wa qaala daal di wax allazi ka nga xamante ne ishtaraahu moo ko jënd min misra ca misra muy azizu misra limraatihi bi mu ko yóbbu jëndee ba pare yóbbul ko soxnaam ne soxnaam soxnaam di zulayxa bul wax zalixa zulayxa lan la ko wax akrimi teralal maswaahu saxuwaayam ak nekkuwaayam kii de wax dëgg yàlla xale bii de man de neex na ma dama bëgg nga teral ko kon gis nga ba ko mbokkam ya ko waroon a dimbali sànnee ca teen tey jàmbur tey jënd na ko ba pare ne nañ ko teral akrimi maswahu assez jombule an yan fa ana mu jëriñ ñu wala boog sax aw na taxisuhu ñu far ko jàppee wala daan muy doom comme ñun amuñu doom muy sunu doom sun borom nee na foofu laa jaarale Yuusuf wa kazalika noonee ma jaarale ko musal ko ba reyuñu ko sànniwuñ ko ca àll ba dugal ko ca teen ba ba ñi ko jël indi ko misra ba azizu misra xolam bëgg ko ba ni soxnaam teral ko sun borom nee na kazalika nekk noonu makkan naa la ñu lañu la jekkuloo li yuusufa ñeel yuusuf fil ardi ci suufas misra mooy mu nekk fa ci kaw teraanga walilu ak ñu xamal ko min taawilil ahadis pirim gént ak xam li ump ci xolu doomu aadama ndax wallaahu bur yàlla ñoom mbokk yi liñ dajaloon doon ko def fa la seen niveau toll waaye wallaahu bur yàlla moom it def na li muy def ndax moom xaalibun aju not la mu ala amrihi ci mbir mu mu namm amul luy dox digganteem ak def ko te moo gént gént gént ga fala budde mu sotti walakin wante ak walakin na wante aksara naasi walakin aksara naasi wante la gën a bari ci nit ñi laa a xamuñu loolu léegi nag mbokk yi yonte Yàlla Yuusuf mi ngi nekk xale bu ndaw ñu yéegee ko ca kaw pale ba akrimi maswa ah ndeysaan ñu jàppee ko doom muy wettali soxna si di wettali boroom këram di azizu misra ña fa nekk ñépp di ko xool bëtu teraanga ndax cër bi mu am ci kër gi keneen amu ko fi ndax moom lañ fi jàppee kom doom comme jàppee ko fi comme jaam léegi nag yàlla dogal danger bi nekk ci ban danger moo am ci adopté nit ne sama doom la góor mooy da ngay gis léegi-léegi benn couple boo xamante ni yàlla dénku leen njaboot ñu jël xale bu góor indi ko adopté ko comme mu nekk seen doom danger du am tànk mi ngi nekk xale waaye day màgg day màgg day màgg bu amee ñaar fukki at jëm kaw ah diggante ba ak way jur amu fa de ab danger mën na fa nekk xam nga da ngeen leen bëgg wax xam déet danger boobu nag moo posé wu ci kër Azizu Misra ak soxnaam ak yonteel Yàlla Yusuf mooy bi muy nekk xale soxna si amul problème waaye soxna si xam na ne xale bii moom am na lu àndal ndax taar bi nekk ci moom kenn xamul nu mu mel waaw bi mu demee nag ba nga xamante ni àgg na nag ñaar fukki at ah jëm fanweeri at daal di nekk xale bu góor nag boo xamante ni nag toll na fu ñu koy mat a bëggee te mu ngi ci biir kër gi léegi nag alquran nee na wala maa ba nga xamante ne balaga àgg na moom yonte yàlla yusuf ashuddahu ak dëgëram ñu ne fanweeri atam la sun borom nee na aataynaahu jox nañu ko xukman xam-xam ah wa ilman xukman xikma wa ilman ak xam-xamu dégg diine lii avant ñu koy yónni la suñ borom nee na wa kazalika naka noonu niñ ko fayee loolu najzi la ñu fay almuhsinina way rafetal na wa raawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa raawadathu almuraawada boo gisee faala ak tafaala ñaar a koy def bii nag day wane ni mooy def na ay tentative yu bëree bëri wa mooy doon na ko jéem a sàkku allati soxna sa nga xamante ne huwa moom yuusuf fii baytihaa mi ngi ci néegam mi ngi ci këram su fekkoon ne ñoom ñaar bokkuñu ko danga mën a wax ne yuusuf moo wane melokaan boo xamante ne moo tax soxna si sàkk ko ak di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko sàkku daal waaye moom yuusuf dafa munta ñoom ñaar dañoo bokk kër gi bokk néeg bi mu koy yónni ñu nag war aawadatu lan nga fi déggee mooy soxna si bëgg na yuusuf léegi-léegi mu ne ko indil ma ndox mu indi ndox mu ne ko lu tax doo ma xool ba may jox ndox kooku mu raawada la léeg-léeg mu indi ñam mu ne ko attaayal ma indi mu ne ko pourtant mën ngaa toog toogal tuuti ñu waxtaan yooyu yëpp ci mu raawada yi la bokk sun borom nee na ah mbir yi bëri ba raawadatu la te huwa bi bay def daa waaye lépp nag mi ngi amee an nafsihi ci lu dul sagos Yusuf mooy amul lu ci Yusuf def moo tax an nafsihi lu dul sagos Yuusuf léegi nag yollo ngar googu mu doon def te jàppul léegi dafa bëgg a indi nu mu tuddati xàcc dóor bi am benn bis mu ni ko man de sama néeg bi dafa am dafa am lu mu laaj de xam naa laaj na yenn defaraat yeeg yooyu daal ci wàllu ne te waaye bagage yu ma xamul dama bëgg nga defaral ma ko naka yuusuf dugg ci biir xam ngeen ni pale buur du nekk benn bunt ay bunt lay doon daañ ko dégg ci baati alquran yi insha allahu taala ah ndaka mu nekk fa soxna sa daal di génn ca bunt ba nga xamante ne moom moo moom ngay njëkka dugg mu ne ko ràpp tëj waaye ci alquran ji da ci dégg mu ni dafa tëj ci kaw tëj ci suuf te danga gis ne itam ci da dégg ci alquran ji ne du benn bunt la tëj ay buntu la tëj ñëw ca beneen bunt ba ne ko ràpp tëj ñëw ca beneen bunt ba ne ko ràpp tëj xanaa nee nañu ba mat juróom-ñaari bunt moo tax mu ne wa xallaqati labwaaba wa xallaqa faala yu failu mu failun mu faalun fail tafailan foo ko gis yu fiit ak taksir ca fiil ba walla ak taksir ca fail ba wala ak taksir ca maful ba wa xallaqatil baab mooy bunt bi tëj ne ko tëjaat ko ne ko rap rap al abwaab ay bunt kon ay bunt la ba nga xamante ne mu wóor ko ne fii moom ak daw mënu fee nekkati ak mucc itam mënu fee am wa mu wax ko hayta laka sama lépp ñeel na la yaa ci des jëfandikoo ko loolu la maanaam mi di wum wunn ci gàttal qaala yonte yàlla yusuf ne ko maazallah maa ngi wut fii ma nekk de mooy néew naa fi doole kenn rekk ma mën a musal muy yàlla maa ngi wut mucc ci yàlla ma maazallah innahu naka ki nga xamante ne moom moo ma jënd indi ma fii ci kër gi rab rabbi di sama sang moom de ahsana rafetal na maswaaya sama nekk waay ci kër gi moo la waxoon ne akrimi maswa te innahu naka luy mbir tey mbir laa yuflixu du tooñ mukk laa yuflixu du texe mukk azzalimuna way tooñ na fi mu jaar ak man su fekkee ni li nga bëgg def naa ko rek dinaa ko wor te bu ma ko woree ku wor du du texe mukk sun boroom nee na am na kërti kërti bu fa nekk wala qad hëmmat bihi wa hëmma biha mbokk yi fii boroom xam-xam yi wax nañ fi ci li ma takk xanaa te wax yooyu yu bari day dellu ci Abdullah ibn Abbas ay jaar-jaar yu wér fa tabaarakallaahu ku dem ci adwaul bayaan daanaka dana la dajale wax yépp fa tabaarakallaahu waaye wax yépp lu ne wax nañu ko ca nag nee nañu wala qad hëmma bihi wa hëmma biha moo di nee nañu dem na ba xelam nekk ci àgg nañu sax ñuy nettali ba ci ne te ñu koy wax boroomi xam-xam lañu ñu yiw lañu ne àgg na ci ba toog ci kawam kon nag mooy sori woon na bi mu àggee foofu nag ñu ni mu xool ci pegg néeg bi mu mel ne yont yàlla yaaquub moo ko feeñu màtt loxaam bi cax ñi ne jibril moo ko feeñu wàcc loxaam bi cax ñi ne image yu yaaquub la gis lu ne boroom xam-xam yi wax nañu ko ci te ñoom ñu baax lañu ñu tedd lañu mënuñu leen a fay ñoom ñi ñu gàddul xam-xam ba mu agsi ci ñun yal na yàlla dolli ay yërmandeem ci ñoom waaye mbokk yi alquran ci langue arabe la wàcc kon nag dañuy seet liggéeyu arabe bi ci biir wax ci alquran nee na wa laqad hammat bihi ñun ñu demee demuwaay bii ñuy bëgg a wax ñun wa laqad hammat dëgg yitte woona moom soxna si bihi ci yonte yàlla yuusuf ngir am li mu bëgg ci moom xam wax jooju jeex na waaye déglul wa hamma biha lawla an raa burhana rabbi dañoo am xarfum tinaa in li wujudin muy lawlaa xam nga bu ma la nee lawla zeydun la akramtuk su dul woon teg zeyd nekk gi mu fi nekk ak am gi mu fi nekk kon ma teeral la su dul woon ne li ma banque dinaa la dimbali kon est-ce que ndimbal gi am na ndax lan moo tax mun munta am mooy ah soo tukki woon soo su fekk su dul woonte li nga nekk Sénégal nga dem Europe daa am xaalis waaye dem Europe am xaalis bi amul ndax nakk gi nga xam yéen a ngi dégg li may bëgg a waxam déedéet léegi déglu léegi nag jawaabu charte bi dafa mën a jiitu te dafa mën a mujj léegi nga ni am na ñu nanguwul jawaabu charte bi jiitu ñu ni waaw kon nag jawaabu charte bu mujjee ñu xasaf ko dagan na ñu xasaf ko buñ koy xasaf nag walaw laa an rabatna ala qalbiha in kaarat la law laa an rabatna ala ana lan mooy jawaabu law laa an rabatna ala qalbiha da nga koy jëlee ca gannaaw in kaadat la tubdi bihi lawla an rabatna ala qalbiha kaadat la tubdi bihi xaw ma dégg ngeen wax jëm déet kon dañuy wax ne moom de lawla wa hamma biha doon na yittewoo ak moom laa an raa burhana bi comme burhan bi am na mais kon hëmm bi mun mënta am xom yéen a ngi dégg wax ji ah bu dee nag da jàng ci aaya yi ci kanam yépp yi wane ni hëmm bi amul ndax maalim naa alayhi min suu beneen bi innahu moom dafa bokk ci ibadullahi almuxlasin ca iblis nee woon na yàlla la ughwiyannahum ajmaina illa ibadaka minhum almuxlasin te yusuf ca muxlasina la bokk kon xanaa iblis sax setal na ko kon dangay wax ne wala wa bi biha doon na yittewoo soxna si cey doon na yittewoo law laa an raa bu fekkul woon mu gis burhaana rabbihi layu boromam ban la nag yàlla moo ko ko defal ah su ko defee nag wax nañ ci lu bëree bëri sun borom ne kazalika naka noonu ñu ko wanee burhaan bi li nasrifa anhu suua kon ñaareel baa kon yittewoo woo ko ñu wëlbatil anhu wëlif ko as suua ak ñaawteef muy ak fo ak wor wal fahshaa ak ñaawteef muy ak jaaloo nee na yàlla nee na maa ko ko ñaar yooyu kon xanaa yittewoo ba amul ndax innahu naka moom min ibadina dafa bokk ci suñu jaam ñi al muxlasiina ñu ñu sellal ña te cheytaane nee woon na ko illa ibadaka minhum muxlasiina te yàlla waxoon na ko ne ko inna ibadi laysa laka alayhim sultaan kon jël leen prix moomu wax jiñ ci wax nag bëri na torop torop torop waaye lii nag moo yelloo ak yonent ndax yonent maasum la te ismaam zaati yi la zaati yi la sun borom nee na naka burhaan bi ñëw was tabakaa njëkkalante nañu albaaba buntu ba mooy ñoom ñaar ña nga wutali bunt ba yuusuf wutali na bunt ba pour rëcc waaye Zuleyxa wutale na bunt ba pour tëj pour pour bañ mu rëcc Yuusuf ba muy wuti bunt ba wóor na ko ne tëj nañ ko waaye nag foofu karaama fa ñëw mu wéeru ci boromam rek nee na waqat dat ba muy àgg ca bunt ba mujj ba mu ne ko xoos jàpp yuusuf bunt bu mu jub mu tijjeeku bunt bu mu jub mu tijjeeku ba ca bunt bu mujj ba rekk ndaw si jot ko nekk téye ba téye ci baatu mbubb ba ne ko treet xotti moo tax wax xaddat mu xotti xamisahoo baatu mbubb yuusuf ba min duburin ca wàlli gannaaw ndeke loolu mooy liy na rasetal setal yuusuf ndax bu loolu amul woon musiba am bu xottiwuloon woon mbubb mi musiba am ah xotti na mbubb mi yàlla dogal nag nekk ñuy agsi ci bunt bi tombanteeg azizu bisra di di di di di di wàcc fasam di pour dugg ba alfayaa ñu fekk sa sayyidaha boroom këru soxna si la dal baa bi ca fa bunt ba mu ni leen waaw yéen lan moo xew lii lan la lii lan la lii lan la rek soxna sa tëb ne ko ha yow nga jël xale bi teg ko ci kër gi lu ne nga teral ko ko lan mooy payu sax ah ku nam ma ku nam ma ah, ah, ah, war la ci sa biir kër lan nga lan mooy fayam ci saa si kat moo moom mooy àtte moo lay mooy avocat moo bëgg a nekk juge moo bëgg a nekk procureur àtte ne xanaa nañ ko def nangam ak nangam ak nangam wax ja bëri na wax ju bëri nag du jóge ci fu dëgg nekk moo tax mu ne xaalaat mu ni ma jazaa'u man an ana lan mooy payu koo xamante ne araada dafa namoon su an ak ak ak ak jeng bi ahlika ci sa ñooñ ah kii kay xanaa illaa an yusjuna lu lu dul ñu tëj ko kaso wala boog aw azabun alibun wala ñu duma ko bam ni wét haa foofu ndax Yuusuf day noppi banque ay loxaam rek bañ a yi moom war naa seddi ah xaala Yuusuf ne ko loolu amul de li xew te xew man namuma ci sa ñoñ asu hiya moom soxna si ci boppam raawadat nii moo ma yàgg a moo ma topp di ma wut an nafsi te ci lu dul sama sago amul lenn lu ma ci def léegi nag ñoom ñett ñoo fa nekkoon muy Azizu Misra soxna si Yuusuf léegi nag kee wax na kii wax na il faut seede am yàlla indi seede seede daal di wax loo koo xamante ne ak waxam miinuñu ko woon ci wax moo tax ñu ne xale bu ndaw la ndax xadis saxal na ko koo xamante ni ah ku ku tëddoon foofu la rek di xale bu ndaw boo xamante ne dañ ko boot mu daal di wa shahida shahidun koo xamante ne min ahliha nee na ibnu ammiha la loolu la wax te fekk na ne boobu mi ngi ci berse mi ngi ci berso doomu bàyyi taxam bokk ci ñooñu soxna si ci famille soxna si mooy seede ne ne te moom xale bi gisul mbubbu yuusuf ndax dagg naam dëggul mu ni waa ji in kaana xoolal mbubb mi rek mbubb mi daal na àtte mbir mi soo gisee mbubb mi comme jonjoo am na te ñoom ñaar ñëpp a ngi wax xottiku mbubb mu mënu cee ñàkk xoolal mbubb mi bu xottikoo ci baat bi mooy Yuusuf moo ko doon sàkk soxna si jéem a mucc ba xotti mbubbam ci kanam waaye bu fekkee ne mbubb ci gannaaw la xottikoo ko mooy soxna si moo doon sàkk Yuusuf Yuusuf si daw mu koy xëcc te kii seede gisul mbubb fu mu xotti ko ah Azizu Misra doy loo wax jooju daldi di xool mbubb Yuusuf moo tax mu ne in kaana ndeem nekk na xamiisuhu mbubb ma xudda xotteef na ko min qubulin ci kanamam fa sadaqat ndaw si wax na dëgg wa huwa moom mii yuusuf moom mooy kaasib minal na bokk ci way nar ñi waaye wen kaana njeem nekk na xamiisuhu mbubb mi xudda xotteef na ko min duburin ci gannaaw kon nag ndaw see fa kasabat moo fen wa moom yuusuf li wax min as-saadiqiina dëggu na bokk ci way dëgguña ah mu daal di koy vérifier waaye ba mu ko vérifié falam ba nga xamante ne raa gis na moom borom kër gi borom këru soxna si xamisawoo mbubbu yuusuf bi gudda xotteef ko min duburin ca wàlli gannaaw aa ah, xaala wax jàkkaarloog soxna si bëggul mu jëm kaw ne ko innahu sa coow lu bari loolu nga doon wax naan ki nam Eh, eh, jeng ci sa biir kër nañ ko tëj wala nañ ko def ndàngam ndàngam wax ju bari jooju laytu yooyu yépp min kay di kunna mi ngi bokk ci seeni pexe ndax yéen jigéen ñi indi inna kay da kunna naka seen pexe azimun dafa rëy de lii say pexe la daal dina gees ne ana Yuusuf mu ne ko naam mu ne ko Yuusuf nag yow Yuusuf lii bu mu jëm kaw aarit du moyul an jile mbir bu ko kenn déggati and gestuwaat ne ana soxna si mu ne ko ah mu ne ko yow nag def nga aw njaajaan li xew mooy wastaxfir yi na nga jéggalu ji jéggalu li zan bi ka sa sa bàkkaar bi te bu mu amati yow kat tey jii i nekk nekk yow kunti kat nekk nga tey di kat xaati ah min alxaati na bokk ci way juum nii xam nga njuum loo xam ne yaa ko tey mooy alxaati njuum loo tey nga def tey nag loolu léegi ñen ñoo fa nekkoon buur bi ma fa Aziz Misra ma fa nekkoon ak kan Yuusuf ak soxna si ak kan shahid bi waaye xamuñu ni mbiru pale du umpe pale loo fa nas nocc fa day génn mbir ma génn daldi seen comme moom mooy ministre yépp ci moom lañu aju ah seeni soxna commencé di coow imraatul azizi turaawidu fataha an nafsihi moo tax qaala daal di wax niswatun ay jigéen fil madinati ci tobbu kawe bi ci dëkk bi nan imraatul azizi gis nga baatu imraatu su laafee jëkkëram day tàlli taaga day tàlli imraatu bu laafee jëkkër ja taaga day tàlli bu laaful jëkkër ja day banku moom de turaawidu moo doon jéem a sàkku fataaha abdaha mooy jaamam bi la doon sàkku de yéey an nafsi yi ci lu dul sagos jaam bi moom de wutu ca dara ñu ne ha ñoom ñoo koy waxan seen biir jëmul kaw de moom de qad shagafaha xubban cofeel arab daka wutal ay étape ay ataabi étape ashiraaf ñoom ñu ngi ko tuddee mooy mbuus bi ëmb xol bu fa cofeel àggee ba dugg ci biir ñu ne sharaf sharaf xa sharafaha mooy yéem na ko xubban ci cofeel mooy daka sopp ba cofeel gi yéeme ah daxala xubbahu shirafa qalbiha yaani xilaafahu inna la naraaha ñun de gis jàppee nañu ko ne moom kat fii dalaa leen mi ngi ci njuumte mu biineen gu biir waaw moom mënoon a bëgg keneen muy dem di bëgg kooku dégg te ñoom xamuñu Yuusuf di mooy bëgg na bàyyam ba ca kër ga doon ko liggéey rek lay bëgg lay bëgg lay bëgg léegi nag ñoom ñi koy waxante seen biir moom it siiw na ba soxna si dégg na ko moom it léegi nag ñoom moo tax mu ne fala ba nga xamante ne moom Zuleyxa samiat dégg na bi makrihinna seen jëw yi ak lañ ca namm ak niñ ko namm weeree mu ni mbir mi nañ ko bokk arsalat la yebal ilayhi na jëm ci ñoom benn invitation bi ñu ñëwee wa atadat mu préparé lahun na ñeel leen mu takkaa ay ñam tegal leen ay njegenaay yu ñu soonu tegal leen ay yoo xamante ne paaka da cay am yoon paaka da cay am yoon tegal leen lépp waaw wa aatat mu jox moo tax mu ne paral ba tegal leen yooyu yëpp wa aatat mu jox ku la kulla waahidatin képp kenn min huna tukkee ci ñoom sikkiinan ñam yem leen jox day laaj paaka mu jox leen kenn ku ne paaka ah ñu toog di wax bu leen rombee ak taar bi moom Zuleyxa ak ni mu soloon ñu ne ah waaw moom ana booyam ba sax ana kan la ana kan la ñoom ñëpp da bëgg nañoo xam kan la fataahi mooy kan kan waaw mu daal di wax Yuusuf na nga solu ba jekk te bu ma la woowul bul génn su ma la woo nag na nga gaaw génn masalan ñoom jël nañu xam nga bu ñuy lekk odo bi lekk nañu ko lekk ñu ngi lekk michu yi nag léegi nag fruit bi moo des ak yooyu muy dessert bi xaw ma ah bu ci desee nag mu war a ñëw ñoom ñëpp ñu ngi tiim yore fourchette ak paaka bi soxna si ne yuusuf mu ne tëll di wàcc ci étage bi ñoom ñëpp ñu sigg na xinneet xool ndax yuusuf mooy ki ñu doon dégg mooy kan la bëgg nañ ko deeñ kumpa ñoom ñëpp ñu xoolandoo ko bañ ko xoolandoo ñoom ñëpp kenn ku ne paaka bi nga waroon a teg ci yàpp bi ci sa loxo nga ko teg dagg ko te yëgoo ko nàcc te yëgoo ko moo tax mu ne qaala fala wa qaalat mu wax yuusuf moom waqaat mu wax soxna si ñeel yuusuf ne ko uxruj génnal alayhinna ñëwal fala maara ay na woo ba ñu gisee yuusuf ak bar na woo rëylu nañu ko naan lii moom du nit a di lii moom lu mu waqataa waxul waqataa na de waqataa waaw ndax dagg loxo bii dafa am lu muy seede ji ëllëg ay diyawu na seeni loxo ci picca paaka ya ñu yoroon waqul nañu ne xaasha lillaahi jomb na ñeel yàlla muy bind ku mel nii kii maa haasa déet kii cell neel ñeel na yàlla maa haasa déet yuusuf mii lii ñu gis te bashara di mbindéef lii moom du nit ndax nit du rafetee nii in haasa déet lii illaa malakun xanaa malaaka karimun te du malaaka yépp sax a koy mel waaye malaakun karimun la malaaka bu tedd tedd mooy mel nii ah soxna si ne leen man maa ngi dëkk ak moom yar ko ba muy xale ba nëgë te lii mi ngi soog a am ak man ñaata kan laa tëb ñaata kàmb laa tëb yéen tey benn yoon ngeen ko gis rek sërëx ci kàmb gi xaala mun la na zalikunna kookee wax naa la na ji xitaab bi day dëppoo ak ñami waxal ndax ay jigéen lay waxal allazi mooy ki nga xamante ni kii mooy ki nga xamante ni lum tun na nii yéen a ngi dëkk woon a yedd ma fii ci ak cofeelam ak sopp gu ma ko sopp man nag wax dëgg yàlla wala qad li leen dal moo ma dal an nafsihi ci lu dul sagom fastaasam mu terewu wala in lam yafal nag su fekkee deful ma amuruhu li ma koy sant la yus janan na daañ ko tëj dugal dugal ko kaso te wala nan dana nekk saaxiran di aji torox mi na saaxiran bokk ci way torox dinaa ko toroxal mooy daañ ko duma ah Yuusuf daal di commencé xat ci kër gi léegi kenn moo ko doon sonal waaye léegi mbooloo koy sonal ndax kenn ko doon gis tey nag mbooloo ko gis te dal dal kenn ka dal na ñeneen ña ah sonn na mu ne yàlla nag boo ma génnewul ci situation bii doomu aadama la mën naa tàbbi ca kàmb gañ may gasal moo tax xaala mu daal di wax rabbi yow sama borom comme ñaara fi nekk ah asid ñu de dugg kaso ahab moo ëpp cofeel ilay jëm ci man moo gën a taamu ci man mi màcc la nga xamante ne yeddu dane ña ngi may woo ilayhi jëm ca yow yàlla wa illaa tasrif in la ashartiya ak la annafiya wa ñu idgham ko ci mu ne wa illa tasrif ne wëlbati woo an nii sori ma wëlif ma kaydahunna seen pexe ñoom jigéen ñi yow yàlla de boo boobaa as bu dinaa jéng ilayhinna jëm ci ñoom te bu boobaa wa akun dinaa mujj nekk minal jaahiliina bokk ci way bàkkaaru ña ndax ñoom ñooy way réer ña ah nag mu daal di ñaan ñaanam nga sun borom nee na fastajaaba daal di nangu lahoo nangul lahoo ñeel ko rabbuhu boromam ñaanam nga naka yàlla daal di koy nangul ñaanam fa sarafa mu wëlbati moom yàlla anhu walif yuusuf na pexe jigéen ña annahu inna innahu naka yàlla huwa moom assami u mooy nangaa ko nu ñaan mooy aji dégg ji wax yi al alim mooy xam jë mooy aji xam ji jëfi léegi nag ba nga xamante ne xam nañu ni mbir mi kat ñoom tuuma bi lépp ñoom la waaye Yuusuf du ca dara ñu ne kon nañ fexe ba dugal ko kaso ndax léegi azizu misra moo waxtaan ak ñam waxtaanal xam ne mbir mii buñ ko continuer nii ñoom ñëpp seeni soxna sonn nañu ci yuusuf mooy nañ ko tëj kaso rek moo tamit su ma badaa topp feeñ gannaaw discussion lahum ñeel leen min ba ma gannaaw ba nga xamante raawulaayaat gis nañ tegtal yuy wane ni yuusuf du dara ci yii xew la yus janan na nañ ko tëj xataa xiin ba jamono ba waxi nit ñi dal ndax coow li bëri na ci dëkk bi waaw nañ ko tëj ba coow li dal ndax Yuusuf kat yëngal na dëkk bi yàlla dogal ci dogalam bi mu dugg ci kaso bi am lu xew ci kër buur Malik bi waxuma Aziz de mais Malik bi buur bi am na lu xew këram mooy buur bi dafa am ku koy jox muy naan ak ku koy jox mooy ki koy presseel raisin bi ak yooyu ak ki nga xamante moo yor di lakk mburu mi yàlla dogal ñoom ñu waxtaan bëgg a éliminer buur bi pour tooke ko ah ki nga xamante ne mooy njëkk a lekk avant buur bi lekk mooy njëkk a naan avant buur bi naan dafa am toujours balay naan am na kuy naan ba pare ne tekk xool ndax dara ngi ceem déet ndax yëwan na buur bi naan ko wala déet moom ba mu ñëwee naan ci lekk ca mburu ma jékki-jékki na këlëng faatu ñu ne problème am na léegi nag ñu ne kon ñiy joxe ñam yi nañ leen tëj ki yore wàllu naan buur bi ak ki wàllu yore lekkam nañ leen tëj def enquête ci lan la ñu daal jël boisson bi jox ko xaj mu naan dara dalu ñu jox ko ñam wi mu lekk dee ñu ne kon affaire bi ci problème mu lekk ba la léegi nag ñoom ñaar ñu nekk ca kaso ba ànd fa ak Yuusuf seen histoire ñoom ñett ca kaso ba la alquran di nettali buur bi nee na kaso ba ñett ñoon ñoo fa nekk ki daan jox buur bi ñam ak ki daan jox lekk ak ki nga xamante ne mooy yonent Yàlla Yuusuf moo tax mu ne wa daxala tàbbi na ma aho ànd ak moom asij na ca kaso ba fatayaani ñaari xale yu góor ñeel buur ba yàlla dogal ñu gént ba ñu xaala daal di wax ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar mooy ki daan nàndal buur bi mooy ki ka daan jox muy naan ne ko man de indi dama gént indi nag man araani gént naa asiru di pressé xamran sàngara sàngara kenn du ko pressé inab fi sàngara di jóge ah, loolu la nga xamante ne moom lay mujj a nekk muy sàngara raisin a asiru eh, xamran raisin dama gént di ko nalal buur bi wa qaala daal wax aaxaru keneen ki gént keneen ki ne indi naka man yi dama gént axmelu ma gàddu ma yenu fawqa raasi ca sama kaw bopp xubzan mburu waaye mburu mi li ma ci jaaxal maa ngi gis ay picc ñëw di ca lekk mooy taakulu di lekk ak tayru njanaaw yi minhu ci mburu mi ma yenu ah kon ku ne gént na ñun yonent Yàlla Yuusuf naa xibaara ñu bi taawilihi lay piréem lan mooy ak piréem ndax innaa naka ñun naraaka gis nañu la minal muhsiniina nga bokk ci way rafetal ñu xoolal yonent Yàlla Yuusuf ci biir kaso bi mi ngi tudd minal muhsiniin téewul mu nekk ci biir kaso bi kon kasa kaso muhsin dana fa nekk hmm, innaa naraaka minal muhsiniin bi muy dégg baat boobu mi ngi ci biir kaso bi qaala muy wax leen ne leen yéen de war ngeen a dal xel war ngeen a gëm li ma leen di nettali ci primi ndax amul benn bis lu dul dinaa leen wax ne suba li ngeen di añe te moom ngeen di añe suba li ngeen di reere te moom ngeen di reere la yaatiikuma dikk dikkalat leen taamun aw ñam waaw turzaqaanihi turzaqaanihi doon daañu wërsëgal leen ko illaa nabatukuma ndare bu soloo naa leen bi taawilihi ak xab piréem qabla an yaatiyekuma la njëkk muy dikkalat leen taawil ba zalikuma nag ñaar lay waxal moo tax zalikuma xitaab bi kee mbooloom jigéen la doon wax moo taxoon fa zalikunna tey ñaar lay waxal moo tax zalikuma mimma tukke na ci la nga xamante ni muy piri gént googee alla ma ne xamal na ma ko rabbi sama boroom léegi nag ñoom li ñuy xaar xoolal stratégie woote uddu ila rabbika bil xikmati wal mawizati alxasanati wa jaadilhum billati hiya ahsan loolee la yonent yàlla yuusu di jëflante ak ñoom mooy en tant que yonent ñoom li ñuy déglu tant dégguñu ko duñ jóge ci jotaay bi duñ deñ di ko déglu kon na sànni message am ba pare soog leen wax li ñu bëgg a dégg ndax su leen ko teelee wax dutuñu ko déglu dañuy dem seen yoon moo tax avant muy piri gént gi mu daal di lan mu daal def daawaam moo tax mu ni leen ini naka man taraktu bàyyi naa wàcce ca àll ba millata qawmin diina aw nit ñoo xam ne laa yuminuun nangu ñoo gëm billaahi yàlla wa hum ñoom bil axirati alaxira hum ñoom kaafir nooy weddi la ñu ko gëm ñu dekk man de wa tabaatu ngoyaan naa topp millata abaaya nee na diinay saay baay ak saay maam ibrahima sama maam isxaaqa sama maam yaquba saa baay maakaana yëllul lanaa di ñeel ñu an nushrik buñ bokkaale billahi yàlla min shay in ak lum manti doon dara dara dara ndax ñun ay anbiyaa u lañu zalika tawxid boobee nag ñu am min fadlillahi mi ngi tukkee ci ngënee leen yàlla goog ngënele nañu ko aleenaa ci ñun wa ala naasi ak ci kaw nit ñi walakin na wante akra naas li gën a bëri nit ñi la yashkuruuna nangu ñoo sant yàlla léegi nag mu ne leen yaa saaxiba yi si jini yéen ñi ma bokkal kaso bi ñuy fanaanandoo di yendoo di yen ah yéen ñaar maa ngi leen di laaj a arbaabu ndax ay yàlla mutafarriquuna yu tàqalikoo kee nekk penku kee nekk sowu kee nekk ndeyjoor kee nekk càmmooñ xayrun moo gën ngeen leen di topp am wala boog allah yàlla mi alwaahid bi di kenn càppaaculi alqahar bi nga xamante ne mooy notaakoon istifhaamu taqrir la kon ma leen di def daawa yéen xamu leen ni maa taabuduna jaamuwu leen ci xërëm yi ngeen di jaamu min duni lii bàyyi fi yàlla illa asma andré ay tur kese tur yu amul musamma amul jëmm yoo xamante ne sammaytumuha yéen a ko ko tuddee kese tuddee ko ay xërëm antum yéen ñii wa abaakum ak seen bàyyi maa maa anzala wàcceewul allahu buur yàlla bihaa ci jaamu ko min sultaanin wenn lay xam leen ni te nag atte mooy ba yàlla wàccee inil xukmu déet atte illa lillahi ndere yàlla moom dong te yàlla waxul ngeen jaamu xërëm yi te moom yàlla moomee amara dafa santaane an laa taabudu ci ngeen bañ a wéetale di jaamu illa iyahu ndere moom dong zalika googee tawxid ak diinu mooy diina ji alqayim bu jaar yoon ba mooy yoon wu ni coow mooy siraatul mustaqim walakin wante ak naas la gën a bëri ci nit ñi laa ya'lamuuna xamuñu lool léegi nag ma nga dugg ca waare waare ga pare na léegi mu ngi dugg ci soog leen a firil seen gént mun yaa saaxiba yi sijni yéen samay àndandooy kaso amma ahadukumaa daal kenn ci yéen ñaar mooy ki doon servir euh, euh, buur bi boisson kookee fa yasqi dana dellu mucc ba delluwaat dana dem ba delluwaat di serviraat rabbahoo sangam bu muy buur bi xamran comme nam ko daan defee ndax enquête bi bu génnee moom dinañ wane ni moom nekku amul amul defu ci dara bu boobaa daañ ko génnee ba delloo ko place am mu duggaat pale ba waaye wa amal aaxaru ndaal keneen ki def njaajaan ji kookee enquête bi feeñ ni moom la gént ga wane na ko mooy fa yus la bu def na pendre ko suñ ko pendree fa akul dana lekk at tayru njanaam min raasihi ci boppam di cof boppam kon mooy wane yenu gi mu yenu woon peñe bi dégg picc yi di lekk ci kaw bopp bi loolu mooy wane ne daañ ko pendre ba mu faatu picc yi di cof boppam ah wax na leen ko de kenn ki bég na kenn ki moom pexe amul waaye moom it dina xam ci boppam ne moom moo posé moo doon jéem a posé ne buur bi wa qaala mu wax moom yonteela yuusuf yóbbante xudya sotti leef na mat na sëkk al amru mbir allazi ba nga xamante ni yéen ñaar tastaftiyaani yéen a ngi sàkkoo ak leerlu ak ubbee fii ci moom li ngeen doon laaj wax naa leen ko wa qaala mu wax waxu yóbbante lillazi ñeel ki nga xamante ne na wóor na ko moom yonte yàlla yusuf zanna boobu dawul daw waayam ay xana la wóor na ne annahu naka moom naajin aji mucc la mu min huma ci ñoom ñaar mu ne ko boo demee nag samay mbir boo demee da nga génn mais boo demee nga fàttali ko buur bi wax ko samay mbir ndax xam naa ne boo demee buur bi yëgul samay mbir ndax sama xew mbir mi nga xewee ci Aziz mi sama mais xeweewul ci buur bi mu ne inda rabbika fi sa sang fàttali ma ci moom uskur ni inda rabbika waaye moom it ba mu demee comme jël na mbir mi wéer ko ko te yuusuf fi yàlla jaara moom ba fii yàlla dogal moom it moom it ma fàtte ko loolu la ko yàlla fayee moom it mooy fàtte pour mbir mi buur bi yëg affaire bi comme wéer na ko ca waa ji di ko ko yóbbante yàlla seetaan waa ji fàtte moo tax mu ne fa ansaahu fàttaloo na ko ko a cheytaanu cheytaana zikra rabbihi mu fàttali buur bi mu fàttali mbiru yuusuf ca buur ba rabb foofu buur bi lay firi moo tax mu ne fa labisa sax na moom yuusuf fi sijini ci kaso bi bida asini na nangami at ñi ne juróom-ñaar ñu ne fukki at ak ñaar def na ko ca kaso ba ñu fàtte ko fa rek wa la daal di wax almaliku buur bi comme moom moo fi mën a firi gént moom la yàlla xamal firi gént buur ba tey buur ba gént na waaw bu buur ba géntee nag buur bi lii mu gént dakaa gént xëy suba jaaxle nettali ko ñu ne ko lii ah na ngaa reer lu bari rek gént gi répété wuwaat bi mu répété wuwaatee ki nga xam ne moo koy servir boisson ñëw di ko jox boisson bi buur bi mun ta naan na teg mu ne ko sang lan la lan mot mu ne ko man daal sama gént gee ma jaaxal rek naka mu dal di koy nettali rek mu fàttali ko kaso ba ak Yuusuf ne ko bàyyil ma indil la ku mën a firi gént gi ku ko firi léegi léegi looloo indi mbir moomu moo tax mu ni buur bi ne indi naka man ara gént naa saba baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin nag yu duuf yoo xamante ni ak juróom-ñaari nag yu lompañ yu jeex tàkk au nag yu duuf yi di lekk juróom-ñaari nag yu jeex yi mais juróom-ñaari nag yu jeex yi ñoo fekk juróom-ñaari nag yu duuf yi lekk leen ba mu jeex tàkk ànd ak seenu jeexaay moo tax mu ne simaani yaakuluhunna di lekk leen di leen wann sabun juróom-ñaari nag yoo xamante ne ijaafun yu lompañ lañu mooy yu wow koŋ waaye itam ma gis ni juróom-ñaari gub yu tooy gént naa ko ak juróom-ñaari gub yu wow juróom-ñaari dégg nga ba sabaa sunbulaatin ak juróom-ñaari gub xudur yu nëtëx wa uxar ak juróom-ñaari gub yaa bi saatin yu wow ma gis yu wow yi di lonk di modd yi nga xamante ni mooy gub yu tooy yi mu ne yaa ayyuhal mala'u yéen mbooloo mi al mala'u wax naa leen ñooy notable yi mooy topp bu kaw bi kawe bi aftuuni ubbee leen na wax leen ma fii ruyaaya sama gént gi in kuntum njéem nekk ngeen taaburuuna di mën a firi li ruyaa ñeel gént xaalu la ñu ko tontu moo de lii nga gént de adraasu axlaamin ay gént yu jaxasoo la te wama nahnu déet ñun bi aalimiina ñuy xam bi taawilil axlaami sax pirim gént dañ kaa farul xam aa ah, ka nga xamante moo koy service ba ñu wéetee mu wax ko ko mu ne ko nag dinaa xam naa kenn ku nekk ca kaso ba ku mën a firi gént buur bi ne andil leen ma ko waaye nañu xool Yuusuf moo tax wax qaala wax ne allazi ka nga xamante ne na jàmm na min huma ca ñaar ña doon laaj yuusuf àndandoom ya ca kaso wa wad dakara mooy mu fàttaliku wad dakara iftaala lañ ko tëgg iz takara la woon ñu tëgg ko iz takara jël taaga remplacé ko deel mu nekk iz dakara bi mu nekkee iz dakara ñu ni zaal gi yow kat xaw ngaa nuroog deel gi dindil sa tomb mu dindi tombam ñu idgham ko ca deel ba mu nekk it dakara wa dakara mu fàttaliku baada ummatin gannaaw ab diir ak gannaaw ab diir mu fàttaliku xaal ba mu nekkoon ak Yuusuf ne ana man unabbi'ukum dinaa solo leen bi yi pirim gént gi farsiluuni yebal leen ma bu ngeen ma joxe autorisation ma dem ca kaso ba léegi buur bi ne ko waaw demal boolekaat ñu ko boole ñëw ci kaso bi ñu ne buur bee yónnee ci kan Yuusuf ñu woo yuusuf mu ñëw mu dem bi mu ñëwee moom waa ji ca biir yuusuf génnul kaso bi de ndawal buur bi moo nekk ca kaso ba daldi na ko ayyuha siddiqu gis nga ma nga tudd as siddiq te teewul ma ngi ci biir kaso ba yow dëggaakoon bi ndax biñ nekkee ci kaso bi loo ma sa wax dëgg la kon yow du ma wax saadiq waaye siddiq nga aftina ubbee ñu firi ñu fii saba baqaratin si juróom-ñaari nag simaanin na sabon ijaafun wa sambi sunbulaatin xudri uxra yaabisaatin mooy comme génte gi la ma waxoon mooy juróom-ñaari nag yu lompañ ak juróom-ñaari joo xamante ne ñooy lekk juróom-ñaari nag yu duuf ak juróom-ñaari gub yu wow yu lonku di modd juróom-ñaari gub yu tooy ah la alli ndax man arji'u ma dellu ila yi jëm ci buur bi ak ñamu nekka ña may xaar la allahum ndax leen ñoom yàlla a ñu mën a xam pirima yonte yàlla Yuusuf firil ko gént gi mooy avant muy wax dara da yóbbul message bi rek ne ko tazra'una da ngeen bay bi ma maanaa bay leen sabaa sinina juróom-ñaari at daaban yu toftaloo ah, loolu mooy li nga xamante ni mooy taawilu juróom-ñaari nag yu duuf ya waaye maa ngi leen di xamal ne da ngeen bay góorgóorlu de juróom-ñaari at yi day baax waaye góorgóorlu leen de fa ma xasattum lépp lu ngeen góob jële ko ci mbay mi fi fazaruhu bu sunbuli bàyyi leen ko ci gubam mooy ci biir cuq bi bàyyi leen ko ci bu leen ko gi ci génnee ndax mu bañ a yàqu ilaa qalilan nderee lu néew mimma taakuluna li ngeen di soxla pour jëfandikoo ko ngeen génnee ko bàcc ko man ko fa tabaarakalaa bojj ko soq ko sokkaa jëfandikoo ndax gannaaw juróom-ñaari at yi ngeen jëm kat juróom-ñaari ati bekkoor dina ñëw de ndax juróom-ñaari ati bekkoor yooyu mooy firi juróom-ñaari nag yu lompañ yi yoo xam ne mooy lekk li ngeen dencoon ci juróom-ñaari at yu naataange gi muy juróom-ñaari nag yu yu duuf yi min ba sab'un shidaadun juróom-ñaari at yoo xamante ni yu bekkoor lay doon yaakul na ñoom at yi daañu lekk maa qaddamtum la ngeen jiitaloon lahun na ñeen leen ci wàllu pepp yu ma xamul illaa qalilan lere lu néew xanaa loo xamante ne mi maa tox si noonu tukkee ci la nga xamante ne dëxa dencoon ngeen ko ah ñoŋoloon ko dëxëñ ko su ma yaati nag topp gannaaw juróom-ñaari ati bekkoor yooyu dana dikk min ba'di zalika gannaaw loolee mun am at boo xamante ne at mu naataange lay doon yu xaasu at moo xam fi yu xaasu def na xettali annaasu nit ña fii ci at moomee moo xam taw la wa fii te itam léppay naat yaasiru na résin beeg yëpp dina bëri ba ñoom ñëpp daañu nal ay sax ay raisin ah ndaw li dem wax ko buur bi buur bi na yow ku la wax lii mu ne ko waa ji de pourtant ma ngi ca kaso ba moom sax de nee woon na naa la fàttali ay mbiram buur bi daal di ne kooku nañ ma ko génneel indil ma ko fii dama kaa soxla moo tax mu ne qaala wax qaala daal di wax almaliku buur bi gannaaw bi ko ndaw li xebaaree loolu mu ne oh tuuti andil leen ma bii kii firi gént gii kii bëgg naa ko xam kan la. alquran nee na ndaw la dem na ca kaso ba fa ba nga xamante ni jaa ahoo dikkalat na yuusuf ar rasulu ndaw la qaala mu wax ko ne ko yow kët qaala yuusuf moo ni ko ah ku la wax nga ñëw mu ne ko buur bi moo ne nga ñëw yow lay xaar mu ne ko bala maa mën a dem nan laay demee ëllëg ñu ne ma kii moo nekkoon ci kaso bi man bala may mën a génn ci kaso bi day may damay set ba pare bala maa mën a génn damay set wecc ba pare ma soog a génn ba ëllëg kenn du ma wax ne ma kii moo defoon defaakaw ba duggoon ci kaso bi moo tax mu ne ko pour ma set nag li ma dugal ci kaso bi moom buur bi amaana yëgul xibaar bi mooy na vérifier laaj lan moo xewoon ca jigéen ña daggoon seeni loxo ban problème moo posé woon moo tax mu ne xaala mu ne ko irji ak dellul bi rabbika jëm ci buur bi fas alhu nga laaj ko mu laaj maa baalu su niswati lan mooy mbiru jigéen ña allaati ya nga xamante ne xattaa na daggoon nañu ay di yow na seen loxo waaw te inna bi naka sama sang ba moom alimun xamoon na bi kay di hin na seen pexe loolu la mu fassir bi wax inna bi boobu mi ngi ko wax sayyidi am nañu ko fi de sama borom ah ndaw li dellu si ne ku nekk ci kaso ñun gaa gaay génn kaso te kilaan la gaay génn kaso ñëwal mooy buur bi yow ngay laytu kon nañu vérifier lan moo kon kooku am na lu xew li mu wax ku ca dëgër la mooy nañu vérifier lan moo ko fa dugal moo tax comme jigéen ñi nag ñu ne war leen jigéen ñu képp ku loxo am daggoon rek ñu xool ténk defal nii ñu xool loxo bi gis ab dagg-dagg nga ci ñu ne waa kaay kii tërgan baa nga fa moo tax mu ne ma xaala mu ne maa moom buur mu ne maa xaddu na lan mooy seen mbir ñu ko indilee jigéen ñi yéen lan mooy seen problème ak Yuusuf is ba nga xamante ne raawatuna yéen a ngi doon sàkku Yuusuf an nafsi yi ci lu dul sagoom lan moo xewoon lan moo taxoon ñu dugal Yuusuf ci kaso bi jigéen ñaa tontu xul nañu wax xaasha lillaahi sell ñeel na yàlla ah maa alim naa xamuñu alayhi ci Yuusuf min suu in benn benn ñaawteef ah kon nag ka dëkkoon ak moom war naa yëkkati kàddoom moom it seedeem xaalat daal di wax imraatul aziz yi ki nga xam ne mooy soxnas azizu misra na ah alaana léegi de jot na xas-xasa leer nañ ñi biir feeñ alxaqu dëgg gi moo di ana man raawatuhu maa ko doon sàkku kat an nafsi ci benn sagoom wa innahu nekk Yuusuf wallahi la min as-saadiqin mi ngi bokk ci way dëgguña bam waxee ne hiya raawadat ni an nafsi loolee mu waxoon de wax dëgg yàlla looloy dëgg ndeysaan boroom kër baa ngi taxaw mu nekk zalika setal Yuusuf gii dama bëgg li ma ngir na xam sama boroom kër muy azizu misra ne anni man lam axunhu zalika Yuusuf mooy wax zalika Yuusuf daal di wax li tax may sàkku ñu setal ma avant muy génn ndax dama bëgge xool ñaari bët sama sàng ba pour xamal ko ni mësuma ko wor ci këram moo tax mu ne zalika sàkku set gii li ko waral li ma ngir na xam moom azizu misra ne an nii naka man lam axunhu waruma ko bil xëy bi ci ak fàddoom ndax wa anna la nekk bur yàlla laa yahdi du jubal mukk kaydal xaa iniina pexem way war ña kon mbokk yi ah lépp lu ci jaar yoon yal yàlla nangul ñu ko dis lekk suñu misaanu xasanaat lu cépp ci njuumte ak wax ju dul noona ak bu teggiiniwul ci façon waxin yal na yàlla jéggal ñu ko manqué manqué doomu aadama la ak ñàkk xam su ko defee nag suba ñu àggale incha allahu taala toroxlu Yuusuf ni mu toll lii lépp bi mu amee dafa jël lépp delloo ci yàlla wane ne moom kat du dara ne wa maa ubarri'u nafsi ndax inna nafsa la amaartu bi suu